dañuy réglé. dañuy ko réglé assez vous assez vous. non parce que propre frère ñuy damm ay loxo. ay damm loxo bi nii. ay transporté mais dammu loxo damm nii nii ngeen ko jëlee ba Dakar. Lisbonne Lisbonne à Dakar. démb laa jógee Dakar pour professionnel. maa ngi nekk sama benn Dakar Lisbonne Lisbonne voilà. maa ngi dégg baax li ma wax ñoom bu ñu nekkee boo ko waxee ne woon ñu ngi ñu ngi fee yi ñoom ñooy sama béy sama loxo ak sama passeport ak sama papier dégg nga baax li ma wax bi ma ñëwee monsieur gisee ma ñëw bi si gisee bi gars yi contrôlé ma bi ñu ma contrôlé bi bi ma ne tampon ñu ne ma léegi man sama tool bi dañu ko andi leen ma leen loolu ma ne ma ne bàyyi sama bi cinq ans jusqu'en deux mille dix neuf Espagne man Espagne laa dëkk man maa ngi Valence maa ngi nekk baax ma sama kayit bi jusqu'en deux mille dix neuf waaye man avocat imagine avocat man depuis quatre-vingt-dix ba léegi maa ngi voyagé man yàgg naa ne taxaw yokk naa cinq ans trois fois xaw ma quatre fois dégg nga man yàgg naa tëkk bi xam naa li xew mais damay bëgg damay bëgg lii boo ma tee du pour man pour pour Sénégal daal monde la dañu joxu cër waaw bu leen taxawee du ma dem man naa leen mu yóbbu Espagne su ma nee foofu ñu sama problème man loola laa demandé ma demandé wu ma leneen mais ñoo di ma yóbbu Sénégal par la force léegi nag ma ne nga dem ambassade Sénégal su ma demee la même chose. su ma demee sa loxo yi ñu lem moo ma gën a metti man. dëggoo su ma demee maa ngi damm. waaw damm na kay. problème du Portugal. problème bi Espagne bi waa Espagne ñoom li ñu demandé woon nga dem Dakar déposé bu bees espagnol yi boo déposé. xam nga Sénégal yow bu ma demee Sénégal mooy loolu man yow xam nga li ma la wax. man xamal ma gën a bëgg bu la caché la intersection si ak ak vandalisme c'est pire. transit la def. mais ñu jàpp ma. ne ma léegi dañ may fekk ak waa Golf pour pour ñu dootul waat. non non tengo problème man am problème bi mu dem Sénégal mais dama bëgg ñu def ko ci temps bi dégg nga li ma wax man fii dama visa pour voyage. moom nee na ma nee na ma waaw. loo seetaan seetlu nañu bàyyi ci ma loxo bi billahi walaay bu ñu bàyyee yàq ci ñaar billahi mo buus mo am yi buus ba billahi mo buus jox ma loxo billahi sama sama bokkee billahi sama sama bokkee mo ci buus ba pour la mo ma buus éliminer loolu nëbb ko nëbb ko nëbb ko nëbb ko